mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen émission gox bi tey nag ñu am mbégte gu rëy di dalal ki nga xam ni moo di Adja Wuri Diaw Adja ñu ngi lay nuyu. Eh, maa ngi lay fay moom mooy ah, moom nag ah, day yëngu ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum ah, développement. nekk itam présidente mouvement ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca caaroy Fass moom nag bëri na casquette lool waaye Adja dañuy dooree rek ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci mbirum actrice euh, mbirum développement waaye laata loolu dañuy xuus rek ni ki démb njiitu réew mi xam nga dafa woote woon ab journée boo xam ne ñëpp ay génn daal di setal seen gox yi ndax yéen itam fële ca Thiaroye fas def ngeen li ni mel. Mbemba euh, boobu question dinaa ci sawar répondre bu baax mhm. Mhm. parce que euh, président Macky Sall mhm. son excellence dafa def euh, benn initiative boo xam ne que dama naan yéex na koo def waaye ñun nag participer nañ ci comme ni nga xam ne que moom lañ ko ñëpp defee te daf ñu ci fekk sax nag ñu doon programme pour def ko waaw te génn ngeen nag euh, peel yeeg balaw yeeg rote yi ku wax caaro yi nag moom xaw ma nag ndaxam yéen seetal ngeen gox yi ba mu baax. Euh, yàlla def na nag. Mhm. ba suñu gox boobu. Mhm. Euh, loolu ñuy wax quartier propre. Mhm. si ñun la fekk baax. Mhm. ci naka. Euh, ndaxte def amoon na projet bu fa jaaroon. Mhm. ba ñu jot koo gagné. Mhm. ci lañ amoon ay matériel set setal. donc chaque fin du mois rek dañuy génn bu koñ bi xawee tilim rek ñu nettoyé ko dindi ko ba mu set. te en plus euh, suñu waajur yi. chaque matin dañuy bale seen buntu kër yi ba mu set. mu mel ni euh, woote njiitu réew mi yéen daf leen fekkoon ngeen door mbir mi ni mel bu yàgg. waaw wooteem jiitu réew mi daf ñu fekkoon ñu door mbir mi bu yàgg mu fekkoon ñu ñu nekk ci yoon boobu donc moom mu ñëwaat dolli si daf ñuy gën a won rek yoon bi ñuy jaar est-ce que xam nga dañ naan euh, seetal rek gars yi dañuy ñëw defar bale ko ñi yëpp après ñu bàyyi mais est-ce que li ni mel après suivi bi foofu dana yomb euh, suivi bi nag wax na mën a yomb ci man sama xalaat bu gàtt mooy ni mhm. euh, man woo wooteek président Macky Sall mhm. fi ma ko déggee mooy ni mhm. ñun chaque fin du mois. Mhm. wax nañ mën a. Mhm. nettoyer suñu koñ yi. du ñu ba nga xam ni que def nañ appel rek ñu ñëw def benn set setal mhm. après ñu dem toogaat. loolu du jariñ dara. donc suivi bi war na mën a yomb que ci ñun. kenn ku nekk euh, sa koñ. sa gox. chaque fin du mois. ña fay ndaw ak ña fay mag génn. bokku defarandoo ko ba mu set. Euh, loolu dina ja gën a yokk tamit set gi. mu gën a yokk daal ci. donc su ma la déggee mooy ndaw caaro yi fas yi. Mm-hmm. ñoom adopté nañ li nga xam ni moom moo di set setal bi bi ni mel foofu. waaw ndaw yi caaro yi fas yi moom adopté nañ ko muy ndaw yi jidde caaro yi kaw yëpp. waaw mm-hmm. alors loolu dañuy may rek ñu daal di xuus ci li nga xam ni dugg ci euh, bu ñuy wax actrice de développement yow kañ nga euh, commencé yëngu euh, ci mbirum développement. <laughs> mbaa question boobu nag moom. Mm-hmm. neex na ma trop. ci gën a sawar pour répondre. parce que développement euh, maa ngi ci commencé depuis 2009. <laughs> Euh, sama benn ndijaay. bu mhm. ñuy wax euh, mbay booy. Mhm. moom moo jàppoon ci sama loxo dugal ma ci. Mhm. te rëccuwuma ko benn yoon. parce que nga nekk ci millier développement bi dalay jàngal lu bëri. dalay former ci lu bëri. aussi dina la xamal lu bëri aussi ci àddina bi. waaw comme lan tey. comme lan njëriñ bi mu ma amal man. en tant que jeune tey mhm. maa ngi nii euh, développement bi wan na ma yoon bi nga xam ni que falaa jaar mhm. ba créer sama entreprise mhm. nekk ndaw euh, di entreprendre xaaruma liggéey mu jóge ci nguur gi xaaruma liggéey aussi mu jóge feneen mais dama teel a wan yoon bi ma xam ni que fii la ba ma commencé entreprendre yow euh, li foo ko dooree foofu ca Caaroy Fass waa maa ngi ko dooree foofu ci Caaroy xam nga nag bi ma koy door mhm. dafa fekkoon tamit sama yaay mhm. daan dem port mhm. di jaayi ay jus màdd la daan jaay di ko defar jus di ko transformé amour bi nag foofu la ma gën a duggee eh, bi ma duggee foofu nag ma tàmbali man tamit eh, foofu laa ko commencé caaroy eh, en 2009 2009 après ñu mettre en place unité bi ca Caaroy Azur ba tey jii ñu ngi sant yàlla bu baax dañuy ñëw ci unité bi xam nga doo tëb tëb rek dugg ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum développement. Mhm. day am lenn loo xam ne rek moo lay laal ba mu mhm. gis si nga nga gis si njëriñ nga ne lii de dinaa ci sóobu. Mhm. ba nga ci sóoboog ba tey li nga xam ni moom moo jëm ba xam tey ndaw euh, caaroy faas yi. ñoom adapté nañ li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum développement boobu. waa ndaw ñi du ma ne ñëpp. mais am na ñoo xam ne adapté wu nañ ci wàllum développement boobu. parce que biñ ko créé ba léegi. Mhm. Euh, formé nañ ci ay femmes. Mhm. Euh, yamul sax rek ci Fass rek mais dugg nañ aussi ci àll bi. Mhm. dugg nañ ci àll bi euh, dem nañ Thiès. dem naa fi Waalo. Mhm. dem naa fi Louga. Mhm. ak yeneen dëkk yoo xam ne que ñu ngi nekk biir Ngaay. Mhm. même pas 15 jours rek demoon naa formation. di former ay jigéen foofu. donc du ndaw yi Fass rek ñoo ciy bénéficier wu. mais aussi jàpp adapté wu nañ ci bu baax. ndax nag euh, loolu biñ koy def ba pare avant ñu koy def. dafa am fu ñu jaar. muy am formation bi wax d'abord. Mhm. parce que doo tëb rek nga ni damay def dara mhm. doo tëb rek nga ni damay créer te xamoo li ngay créer ak li ngay def lu mu doon mhm. bi ñu yàlla defee nag ba ñu am formation bi euh, ba nga xam ni que nag léegi nag moom produit bii mën nañ ko defar jox ko nit ki mu jëfandikoo ko te du ci am benn gaañ ci lañ daal di nag mettre en place entreprise bi ndaw ñi am ñu ciy yëngu euh, tey fi tey am na ci juróomi jeunes yoo xam ni que euh, bu weer deewee ci la ñuy am lu ñu yóbbu seen kër yi mhm. am ci ay mag yoo xam ne it mhm. ci la ñuy suturloo di ko yóbbu seen kër yi mhm. entreprise bi fu mu nekk moom euh, entreprise bi mi ngi nekk Thiaroye Azur euh, en face poste de santé euh, bu Thiaroye Azur li ni mel ndortel li est-ce que bu démb doon tey di nga ci ñemewaat sóobu ndax dañuy wax ni booy commencé mbir buy metti da ngay daw kon yow dafa metti nga xuus waa ndoxteel bi nag metti woon na trop mhm. trop waaye damaa gën a xuus ndax metti woon na ba ma génn fii benn mhm. moment mhm. Euh, ci après 2012 bi def euh, deux ans yoo xam ni que maa ngi woon ci biti mais aussi dama renforcer waat ci li nga xam ni que laay yëngatu mhm. bi ma gënee doole nag ma delsiwaat mhm. comme ni ñu koy waxee jàmbaar dawul dafa wuti doole mhm, waaw bi ma ñëwee ma gën a xuus nag waaw gën a xuus te xam ni que eh, lu naqari rek bis dina ñëw mu neex tey ñuy wax li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum développement euh, mbir mi ba nga ko sosee ba tey ca caaroy fas foofu ñi nga xam ni nag ñoo di ndaw yi ñu ngi ciy xëy di ci liggéey waaye euh, tey ñi nga xam ni ñoom ñoo di ndaw dëgg-dëgg banlieue bi ñoom lal ngeen leen di wax ci mbirum développement mbirum développement nag bëri na fànn. Mhm. yow ban fànn nga gën a féetewoo ci mbir bi ndax danga ci boole li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum entrepreneuriat. Mhm. Euh, ndaw yi nga xam ni que nag ñoo nekk ci banlieue bi. Mhm. li ma leen ciy wax rek mooy ni que doon nañ ay ndaw yoo xam ni que sonn nañ trop. te li ma leen xamal mooy ni que bu may xëy 4 heures. damay daje ak ñoom ci bus yi ak kaar yi ñuy daw di wuti. waaye tamit du ñëpp ñoo yelloo nekk ci bureau yi. Mhm. am na si ñoo xam ni que macha allah. Mhm. Euh, ñi ngi daw di wuti lu ñu am yor seen njaboot yi. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Memba waaw sëñ bi ñu ngi lay siyaar. delloo tur bi waaw ñu ngi euh, euh, Abdoulaye Famanta. allo ça Famanta ça va. mon frère ziar nañ la bu wér. lan nga ñu mën a wax ci ki nga xam ne moom moo di Adja Wuri Diaw. waaw maa ngi koy nuyu bu baax Adja Wuri. Abdoulaye Famante maa ngi lay fay. Adja Wuri. waaw. alo allo waaw ñu ngi lay déglu bu baax. waaw. Mhm. Bemba dañuy am mbégte ah. c'est une première fois. Ah. Uh-huh. en tant que jeune. pour mhm. dugg ci rajo di woote. Mhm. sérieux. mais sa émission bi dama koy suivre mais aussi tey da ngay invité ku jara invité. merci. mu nekk une lionne une battante au niveau de la banlieue. moi je suis à travailler avec elle. Mhm. ci ay projets yu bëri. Mhm. ci mouvement boobu noonu sax mu nekk moom mooy jëndal caaxaan kaw face bi. Mhm. man maa gère seen communication. mu nekk koo xamante ni. à chaque fois pour l' épanouissement et le développement de la banlieue rek moo ko intéressé. surtout Pikine. surtout Pikine. gis nga elle a des potentiels yoo xamante ni. peut-être sax mënu ko développer carrément ci plateau bi. parce que lu gars yi di wax rek à chaque fois mënoo di fóot sa sa bopp di ragg sa bopp. Mm-hmm. mais am na ay jeunes yu bëri yoo xamante ne enrôlé na leen. Mm-hmm. ci association yi ci mouvement yi. Mm-hmm. moi je suis témoin. ñoo xamante ne tey jii ñu ngi gis seen bopp. par rapport ak activité yu muy développé. Eh, ci taxawaayam nag ci Caaroy euh, fas yow ndax nga ko gisee ci ndaw ñi nga xam ni ñoom euh, jublu nañ ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum entrepreneuriat. waaw entrepreneuriat man ci laa ko xamee. Mhm. parce que dañ lay booleeg moom pour une première fois. dafay mhm. wax entrepreneuriat la. Mhm. mais aussi am na benn casquette boo xamante ne waxu leen ko ndax mi ngi Ramses moom mooy le réseau national des entrepreneurs du moom mi ngi su ma. Abdoulaye Famanta rëcc na di ko sant di ko gërëm lan nga lay lii lan la lay def tey ba nga dem tey taxawal dara ci banlieue bi ndaw yi ñi nga xam ni ñoom ñuy yëngu ci loolu di indi ay seede yu mel ni ci yow. waa Memba. Mhm. Abdoulaye Famanta man toujours dama ko naan c'est mon fils. Mhm. ndax yàlla def na comme ni mu ko waxee bi ñuy ñëw di ma ko dénk. Mhm. dama ko ne man mu gàtt mi ñu lay dénk. est-ce que xam nga ni man xaw ma dara. mu ne ma dégg naa la ci say kàddu yit nga ni xam-xam soriwul daa làqu rek. kon am na loo xam donc may rafetlu wooteem gi mu woote. Euh, di ko wax ni que. tey jii woote bi mu woote fierté la ci man mhm. muy moom ak yeneen ndaw yi nga xam ni que mhm. ñu ngi ñuy déglu mhm. euh, ndax euh, boo àndee ak ay ndaw ba ñu am benn bët biñ lay xoolee di la safoo di la ndamoo saa su nekk fierté lay doon si yow donc mënuma am lu dul contentement ci wooteem gi ak témoignage bi nga xam ne que def na ko ci man mouvement bi ba nga koy sos ci Pikine xam nga ni Pikine sos fa dara lu metti la ngeen ne laan kaa ñu yëngu ci développement metti woon na torop xam nga dañ naan Pikine rab bi dafa soxor mhm. man ma naan rab bi soxorut mhm. ñun ñoo war a boole suñuy force mhm. pour mën a def li ñu bëgg au niveau de Pikine parce que benn dénominateur commun rek lañ am Pikine muy lan développer suñu département développer suñuy commune metti woon na nag parce que avant que may mettre en place mouvement bi biñ ci xalaatee ba pare dañu dugg kër par kër wax ak maire yi wax ak ndaw ñi ñu ñëw donc jël nañ trois ou quatre mois yoo xam ni que avant que ñuy dem assemblée générale bay mettre en place bureau mhm. mu metti woon trop mhm. tamit euh, mais sant yàlla daal ndax tey tey mi ngi euh, comme euh, mouvement bi mi ngi tudd ñu jël mbokk moom ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk mi rëcc na. Mm. xëy na mbokk yi di fàttali mbokk yi rek numéro yi 88 la 628 84 84. wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ba tey mën ngeen a dugg bokk ci li nga xam ni moom moo jëm ci euh, waxtaan bi. Euh, neexul nga nekk ci banlieue ngay yëngatu ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum euh, développement mm-hmm. waaye ci noonu nga sosaale ab mouvement mouvement bi lu ko tax a jug dëgg-dëgg lan la. Euh, mouvement bi li ko tax a jug dëgg nag mooy euh, dimbali askan wi. ci naka. ci li nga xam ne ko ñun yàlla. Mm-hmm. may nañu ko. Mm-hmm. bi ñuy créer mouvement bi ñu ngi fàttaliku ni que suñu ay yaay ñoo ñëwoon nañu. jot na ngeen jug taxaw. Mhm. créer dara parce que moment boobu bëri woon na xale yi di dem géej. Mhm. di fa lab. Mhm. bëri woon na aussi xale yi nekk ci babi foot bi. te ñuy ay élèves. Euh, bu vacances jotee amuñu beneen leneen lu ñu def. amuñu waaw lu dul géej. Euh, babi foot pari foot bi. Euh, babi bi ba deux heures du matin police di leen ramasse ñuy xëyaat di dem. ci biir loolu suñu yaay yi jot na ngeen créer dara boo loo xam ne dina dajale ndaw ñi. Mhm. Euh, nga xam ni que dinañ am lu ñu jàpp. Mhm. ci vacances yi. Mhm. ak lu dul vacances. loo xam ne dina changer seen i idée. changer leen ci beneen xalaatukaay. ci la mouvement bi juddu. Euh, bi muy judd mi ngi tombé période vacances. suñu xel nag li mu njëkk a dem pour ñu organiser ko moo nekkoon. ñu organiser benn centre aéré. tuddee ko ëttu xale yi. ci Déthiaray kaw. ci ci ci noonu euh, xale yi euh, adapté li nga xam ni moom moo di mouvement bi dugg ci. waaw ci noonu xale yi adapté ko mais. Mhm. ci kaw ñu waxtaan. Mhm. xamal leen li ñu bëgg a def. Mhm. ni ñu ko bëgg a defee ak fan lañ jëm. parce que boo nekkee ci yoon da war a xam fi nga jëm ak. lan nga bëgg a def boo ko xamul rek dina jafe pour nga def ko ñoom tamit ñu adapté ko wax dëgg fa yàlla euh, ànd ak ñun ci projet bi ànd ak ñun ñu créer mouvement bi euh, ba tey ji ñuy sant yàlla nekk ci suñu 2020 euh, bi mooy suñu troisième année boo xam ni que def nañ ko ci tey ci ab bilan tey boo doon tënk ginnaaw ba nga sosee mouvement bi ak tey bilan boobu lan la bilan bu positif la mhm. waaw parce que li ma ci tënk mooy. Mhm. Euh, semaine bi passé rek. Mhm. ay élèves dañu ñëw kër ga. Mhm. bokkuñu école. mais euh, yàlla dafa def seen école yi. ñu jël thème euh, sur les formes de violence yi nga xam ni que moo am. xale yi di leen répondre seen enseignants yi questions yi ñu leen di posé. ba si am na si benn directeur bu ma woo sax ne ma soxna si. fi nga teg sa tànk foofu la. parce que dama laaj sama benn élève mhm. forme de violence yi mhm. am mhm. mu dima ko répondre te loolu ñun ñoo ko def ci biir xale yi donc loolu dama jàpp ni que bilan bu positif la parce que naam xale bi xamul woon forme de violence yi nga xam ni que am na naam aussi jotagu ko woon am ca école ba tey ñun def nañ ko ci moom ba nga xam ni que ba mu demee ci école ba bi ñuy laaj loolu moom répondre na ci waa donc man loolu damay jàpp ni que bilan bu positif la aussi ci wàllum santé bi. Mhm. ñu ciy aidé. Mhm. mag ñi. Mhm. ñi nga xam ni que. Euh, li ngeen di def ay journée consultation. waaw jot nañ fa organiser benn journée consultation. Euh, ophtalmologie. maye ay verre. mag ñi. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum ah, sëñ bi ñu ngi lay ziar di la dalal ci émission gox bi. waaw ñu ngi lay jaajëfal. di la nuyu bu baax toi aussi ak. Euh, suñu présidente bi nga invité foofu. waaw tur bi ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Thierno Samassa Ndongo di wootee Jidda Caaray Kaw. acca Thierno Samassa ñu ngi lay bàyyi ak sa suñu invité bi di Adja. Thierno maa ngi lay euh, nuyu. Adja Wuri Diaw. Mhm. loo loo ñu mën a wax ci moom tey. <laughs> Euh, tey moom lu ma mën a wax ci moom parce que da nga invité quelqu'un koo xam ne. Mhm. c'est une battante. ah bon. parce que ñun ba ñuy ñëw ci moom ay xale ndaw. Mhm. formé ñu. def suñu xam-xam. rëcc na euh, mbirum serveur bi la alors euh, ñu ngi woon foofu après ba ngeen ba ndaw yi adapté li ni mel mhm. ñu dugg jël affaire bi aakimoo ko léegi projet yi wàllum éducation wàllum li nga xam ne nag moo di conseil santé bi mhm. ndax tey yéen yéen a ngi xalaat tey seen mouvement bi financé ñi nga xam ne nag ñoo di sos soxna yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca caaroy fas ngir ñu mën a entreprendre comme yow ni nga koy ni nga koy ni nga koy defee waaye ci wàllum financement bi. Mhm. ñu ngi ciy xalaat dañuy gën a renforcer sax lu jëm ci wàllum financement yi. Mhm. parce que ñu ngi leen doon accompagner di leen financer. Mhm. di leen jàppale eh, di leen financer avec un taux de cinq pour cent. Euh, parce que booy jàppale nit. doo ko tegal lu metti Euh, donc ñoom tamit ñu nekk ci yoon. Mhm. am na ci ñoo xam ni que tey tubaarkàlla macha allah. Mhm. ñoom ñoo nekk di gunge ñi nga xam ni que ñoo gën a nekk xale. Mhm. ci wàllum mag ñi. muy à travers le réseau ànd liggéey jariñu. moom ñu ngi ko mettroon en place depuis 2000. waaw réseau ànd liggéey jariñu 2000 ba tey. Euh, muy def ay financement revolving entre ñoom jigéen ñi. Euh, en plus ñun tamit ñuy jëli ay financement di leen ko indi mhm. di leen ko jox mhm. di leen renforcer mhm. di renforcer aussi ndaw ñi parce que balaa ma kontaan mooy ni que ñun ñi nga xam ne que ñun ñëpp ñoo nekk ay ndaw nekk ci biir mouvement bi ñoom ñëpp kenn ku nekk yor sa entreprise li jëm ci wàllum finance xam nga jigéen ñi da ñu baal ma soxna yi dañ leen di jox xaalis des fois dañ ciy dem jëndi ay tissus solu mais ndax yéen a ngi veillé bu leen boo leen joxee li nga xam ne moo jëm ci financement bi ngeen jàppale jàppale leen ci li nga xam ni bëgg nañ ko def ngeen gunge ngeen gunge leen ci euh, ci wàllum financement bi du ma ne rek waa réseau ànd liggéey jariñu mhm. mais dama naan jigéenu Djiddah Thiaroye Kaw yëpp donc ñëpp a ciy bénéficié wu amul ajax amul xaaj seen ñi ci bénéficié wu mhm. bari na mhm. ñi ci bénéficié ñoo ñu dañoo eggagul ci ñoom te bu soobee yàlla bu dee yàlla def na li gën dinañ àgg ci ñoom waaye daal ma xam ma lay xamal ni que euh, balaa ñu laa jox xaalis dañ lay jàngal nan nga koy yoree mhm. ndax bu ñu ñëwee rek yéen yéen lañ koy defal ñoo leen di defal des formation mhm. accompagner leen ci mhm. comme ni nga ko waxee eh, ni ko Famanta waxee sànq au niveau de Rangers eh, le président Moustapha Gueye eh, ma koy nuyu de passage loolu dinañ ci ñëw <laughs> waaw suñu président moom dañuy jàppale ci wàllum formation yoo xam ni que dañuy accompagner jigéen ñi Euh, bu ñu leen accompagner ci wàllum formation. Mhm. aussi ñu soog leen jox seen xaalis. Mhm. ñu dem liggéey. Mhm. di fay. waaw ci noonu lañuy liggéeyee ak ñoom. Euh, sélection bi des fois duy xaw a métti ci ñi nga xam ni euh, frustration yi yéen yëpp yooyu yëpp da ngeen koy gérer ba du mun a fës. waaw dañ koy jéem a gérer nag ba du mun a fës. parce que frustration bi munul ñàkk. mënul ñàkk parce que di nga gis ku ñëw nela Euh, man de damaa soxla woon cinq cent mille pour liggéey waaye yow xam nga ni que kii li laaj cinq cent mille pour liggéey mhm. euh, cinquante mille doxal na activité mhm. nga jox ko ko mu mer mhm. wala sax joxoo ko mu jëlee ko neneen te fekk euh, da nga koy xoolal yoon bi gën a baax bala nga ko jox xaalis bi muy dig ci biir Euh, financement bu gën a mag ci li nga xam ne nag moom moo di ànd liggéey jariñu ca Fass euh, koppar gi euh, ay millions la ngeen leen di jàppale ngir wala da ngay xaalis bugul coow. ay millions la daal waaye xaalis bëggul coow. <laughs> Ah, comme ni ñu koy waxee kon dañuy xuus mbokk yi ba tey ñoom tamit mën nañ bokk ci émission bi wootee rek dugg joxe seen xalaat 88 la 628 84 84 wala 88. 628 85 85 wala 88 628 86 86. nee naa la sànq bi mu lay présenté da nga bëri casquette car macha allah nekk yi nga tam li nga xam ne moo jëm ci formatrice wàllum fruits ak légumes. Mm-hmm. loolu laa bëggoon nga nga nga tojal ma ko ci ca caaroy fas yow naka ngay euh, xanaa da nga am benn ferme boo xam ne moom nga yor foofu. <laughs> même ba mhm. euh, wàllum transformation fruits et légumes mhm. mooy sànq li ma doon wax rek mhm. ndax maa ngi naan euh, amour boobu ci sama yaay laa ko jëlee ndax moo daan defar ay jus màdd di ko yóbbu port ay màdd yooyu confiture di ko yóbbu port euh, donc foofu laa ko jëlee waaye gis nga ferme ba xam naa ko aw ma ferme nag <laughs> aw mais xëy na dina mës a ñëw waaye daal euh, ni ma ciy former femmes yi ak di leen ci gunge mooy. Mhm. dama gis ni que suñu produit yi nga mhm. xam ni que moom lañu am. Mhm. Euh, ñu koy jël. di ko génnee ci réew mi. yeneen réew di ko bénéficier wu di ko utiliser. ñun mënuñu ko utiliser te ñun bu ñu defaree suñu produit yooyu. ñu utiliser ko loolu ñu naan consommer local. moo gën ci ñun. moo tax euh, ma leen ciy gunge. muy araw mhm. kii bi ñebbe bi mhm. caakiri ñebbe mhm. euh, di araw bi di conservation produit bi chou pommé bi carotte bi machidouane bi xam nga des fois day manqué kaani salade bi tout ça mais dinañ leen jàngal nuñ koy conserver ba même seen kër yi produit boobu moment bi nga xam ni que lay manqué ñoom am nañ ko seen kër yi te bés boo ko génnee pour utiliser ko day mel ni loo gém dindi ca tool ya mhm. indi ko mhm. noonu lay beesee mhm. kon ci noonu ngeen di tàggatee ñi nga xam ne ñoom ñoo di femmes yi adapté leen ngir jàngal leen li nga xam ne moom moo jëm ci loolu femmes yi nga xam ni jot nga leen yow tey tàggat ñuy yëngu ci loolu ñoom lim bi ñaata la ah, lim bi nag moom takku na trop dëgg fa yàlla lim bi moom mënuma ko wax parce que yemuma rek eh, ci jidda caaray kaw law na ma rek Fass mhm. waaw comme ni ma ko waxee sànq damay génn mhm. di dem ci àll bi mhm. di former foofu ay jigéen waaw damay génn di dem di leen former ci xeetu produit bi ñu bëgg ma former leen ci soit jus lañ bëgg soit sirop soit conserver produit bi lañ bëgg moom loolu laa leen di defal dem donc lim bi bari na trop waaw bu nu kon bu nu xoolee kon Adja Wuri Jaw comme koom gi dugg na yow nag mii euh, yaa ngi euh, yëngu ci euh, lu ñuy wax nag développement dëgg kon yaa ngi ciy yëngu bu baax a baax. waaw maa ngi yëngu ci développement dëgg mhm. donc tey bu ñu delluwaatee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi tey mën nañ jàpp ni kon li jëm ci wàllum transformation bi kon Caaroy fas loolu réalité la fa. waa réalité la fa. parce que gis naa jigéen ñu bari ñoo xam ne que dañ ciy yëngatu. Mhm. di yeneen GIE. Mhm. yoo xam ni que ñu ngi yëngatu ci wàllum transformation bi. Mhm. waaye tamit ak difficulté yu metti waaw parce que. jafe-jafe yi si gën a jàmp lan la tey. jafe-jafe yi ci gën a jàmp mooy espace jigéen ñi amuñu ko. amuñu espace bi nga xam ni que fa lañ mënee a produire seen produit yi. dañuy am problème machine yi. parce que boo bëggee defar araw wala cere faw nga am machine wallukaay mhm. donc problème yooyu ñoom dañ koy am. Mhm. am problème mu aussi seen produit yi. Mhm. ak pro problème mu financement yi. Euh, parce que du ñu gis bailleur boo xam ne que day ñëw. appuyer leen. jox leen ne leen liggéey leen pour yéen. mais bu dul ñoom ñooy def seen i cotisation seen i kees. duñu mën a def loolu. Mhm. est-ce que tey euh, yéen a ngi approché ñi nga xam ne ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu mbay mi comme li nga defee euh, machine yeek yi ni mel. Mhm. pour am bi gën a mën a yomb tey ngeen ne dem jox leen li nga xam ne moo di projet bi ngir ñu mën leen jàppale ci li ni mel. waa man nag euh, ci man. mën mhm. mosuma leen approché wu. waaye réseau ànd liggéey jariñu mës na approché wu benn ministère. ba ñu appuyé wu leen. Mhm. benn machine. Mhm. yàlla def na nag machine boobu. Mhm. jotul a yegg si. machine boobu dañoo. sàccoon ci ci yoon bi daal la tàggee dañoo sàccoon pièces yi. ba tax jotuñu ko utiliser. waa mais ci ci ci loolu tey bu nu xoolee li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum développement en tout cas yow actrice nga ci tey foofu tey mu mënuñu wax tey développement te ca Caaroy Fass génnee la ci. ndax yow tey euh, comme ni ko ñi nga sama ñi nga xam ne ñoo doon woote léegi-léegi taxaw parce que yaa ngi fa waaye di di gestu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi ngir ñu mën a liggéey seen gox parce que gox bi la ñuy wax ndax yow yaa ngi gën a approché ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci askan wi foofu noonu. waa Memba mhm. euh, dëgg la euh, man jàpp naa ni que tey kenn mënatul wax développement. Mhm. au niveau sama commune. Mhm. waxuma laaj département bi te boole woo ma ci. parce que damay wax souvent ni que Pikine buñ ko dee jaay sax bu dee am naa ci wàll. Mhm. ndax liggéey naa ko fa. Mhm. maa ngi approché wu sama population nag bu baax. Mhm. di xool li nga xam ni que moom laa leen mën a jàppale. ci wàllum formation ma jàpp ci. li ma war a mën a jàpp ci wàllum financement ma xool fan laa mën a dugg ak génn ba indil leen ko. Euh, ci aussi élèves yi ñi nga xam ni que ak étudiants yi mën naa leen jàppale ci wàllu bourse mhm. ma dem dox wax ko mhm. lijjanti leen ko mhm. jéem leen ko indil donc daal ci fànn wu ne yaa ngi jéem a euh, marqué wu foofu daal ngir askan wi ngën euh, a mën a farlu ci nga xam ne moom moo jëm ci wàllum développement bi waaw parce que nag euh, ki nga xam ni que man moo ma ci dugal tey day toog di am contentement bu ma déggee may wax wala bu ma gisee man tamit damay fexe ba loolu mu jëloon def ko ci man mm-hmm. ma def ko ci yeneen yeneeni ndaw mm-hmm. comme sànq ki woote woon tonton Samassa mm-hmm. euh, muy jarbaatu Mamadou Diallo euh, ndijaayam daf ma fekk ci biir école bi ak xale yi mu ne ma yow yaa nekk fii ci école mu ne ma mu ne ma maa la yónnee sama jarbaat dénk naa la ko li nga nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci man donc mhm. ci moom donc damay sant yàlla mhm. euh, ba nga xam ne que am na ay kilifa yoo xam ne que ñi ngi jàpp ni que man référence la mhm. bañ may indil ay ndaw di ma booleeg ñoom ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum salaam ah sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi ak fon yu woowee ça va alhamdulilah bien merci en fait euh, bismillah allo waa bismillah ñu ngi lay déglu voilà très man la Pape Samba Diouf. Mhm, Pape Samba bisimilah. maa ngi wootee ci Dakar. Mhm. donc di leen nuyu Ndamba di nuyu également ci invité yi. madame euh, madame euh, Adja Diaw. Mhm. voilà donc c'était juste euh, un message d'encouragement. voilà parce que bon man li ma ko xamee mooy ni ko Sénégal ñëpp xamee. mu ne personne boo xam ni dafay yëngu ci wàllu développement. te aussi mu jaral ko lu nekk. mu nangu ci sonn également. donc di jël ay initiative yu bëri allant dans le sens de la formation mhm. dans le sens de l'encadrement mais aussi ci mhm. accompagnement xale yi mhm. alors je pense que tey ci Sénégal euh, toll euh, jikko yi yàqu na yàqu boo xam ne il faudrait que véritablement ñu tourner vers les plus jeunes euh, jàppale leen encadrer leen former leen ba teg leen si ñu leen war a teg su ko defee ëllëg si biir ñu am des citoyens modèles te je pense que moom ci loolu mooy côté bi am ci loolu la nekk mhm. ma ko ci félicité mhm. également mu nekk koo xam ne je pense bien que war nañ ko jël mhm. comme euh, modèle je me dirais si moom parce que aussi

euh, lancer un appel mhm. euh, auprès des services compétents mhm. parce que aussi euh, dañu nekk dans un état boo xam ni c'est un état mhm. organisé avec euh, ces démembrements au niveau de pratiquement toutes les communes du Sénégal alors je pense que aussi à niveau mu nekk ñu département Pikine donc les services qui s'en occupent qui de l'environnement qui s'occupent de la santé qui s'occupe de l'enfance war nañ ko mën a gerte ko dooleel gën ko accompagner parce que li ñu liggéey am na njëriñ en tout cas euh, ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. merci Pape Samba. Mhm. yii ay message la yoo xam ne boo ko dee faral di dégg lan la lay def. Euh, daf may gën a yokk jom. Mhm. daf may gën a jox courage. Mhm. pour ma gën a xuus ba ci biir. parce que comme ni mu ko waxee xale euh, moomin la. te loo def ci ñoom rek. day feeñ ëllëg. man d'accorduma souvent ñu naan ndaw ñi. yéenay ëllëg. vous êtes l'avenir de demain man d'accord ma ko mhm. man dama jàppati que ndaw mhm. tey la mhm. suba ak gannaaw suba moo tax man li ci ëpp may jël sama euh, doole doole gu ëpp di ko def ci xale ci bi muy ndaw ba mu nekk mag ndax dina tax mu am yenn jikko yi nga xam ne ko comme ni mu ko waxee sànq fi mu toll nii nga xam ne ko nous sommes en crise de valeur mm-hmm. euh, dina tax xale boobu nga jël ko former ko encadrer ko mm-hmm. ba fu mu fekkee fu ñu toxee ba fu ñuy naanee mm-hmm. du ca bokk mhm. dina tax ba du fekk fu ñuy quartier du ca bokk mhm. te bu vacances jotee du tal dem géej mhm. day tal nekk ci yeneen mu nekk di dem géej en tout cas itam euh, euh, wàllum euh, légumes yi dañuy delluwaat ci li nga xam ne rek moom moo jëm wàll wàllum xam nga sama ki may teel technique <laughs> moom dafa foo dafa fooye loolu légume <laughs> ba ba tax na yéen fan ngeen koy jëlee da ngeen di dem ca Euh, dëkk euh, dëkkaan yi indi ko ngir mën ko liggéeye wala. Euh, waa li jëm ci unité bi nag produit yi nga xam ni que mooy sirop yi may defar ak jus yi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc bu may defar stock du ma dem ci marché yi noonu mm-hmm. lu ci mel ni mango bi bu ñëwee période am dañuy déplacé wu dem ba Kolda jënd foofu mango bi nga xam ni que moom boobu buñ ko defaree jus ah buñ ko tegee nag ci foire yi vraiment balaa kenn di jaay mhm. ñu njëkk a jaay jeexal mhm. waaw ndax dina rafet rafet goo xam ni que boo bala ngaa produire bay pare sax mhm. da ngay kontaan ci sa production waxuma la bu paree ba nga dem di ko exposé. ak ak ak yenn ak ak yan. am naa am na ñu may déglu. moom bu nee mango rek seen xel yi dañuy dem feneen. waaye am euh, mhm. na am na bisaab. Mhm. am na buy. waaw mhm. ah, yooyu yëpp am na. buy bi moom. xam nga damaa ñeme àll. des fois bu ma faqa saloo ba kidira rek. fa laay jëndee buy. ndax buy bu bees bi bu amee. ma jënd foofu. li ma soxla ñëw stocké ko fi ndaxte bu fekkee dañuy jënd détail bi liggéey bi day gën a jafe si ñun ndax askan wi. Mhm. Euh, accepté gu ñu à cent pour mhm. bi. Mhm. dañuy jël mbokk moom rek ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo oui salaamaaleykum. Ah, soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di ziar noo leen def. ñu ngi sant yàlla bu baax tur bi ak foo ñuy woowee. madame Sow Khady Diaty Diop Djidda Thiaray Kaw. madame Sow ñu ngi lay déglu tey lan nga nu mën a wax ci Adja Wuri Diaw. waa laaj nga ma ci ku jar laaj. Mhm. laaj nga koo xam ne joxa goxam rek a ko ñor. Hmm? demul di wuti ji rek pour boppam déedéet bu amee ci biir communauté bi la koy indi. Mhm. kooku goxam rek ko ñor. Mhm. xale yu ndaw yi rek ñoo ko ñor. macha allah Adja Wuri Jaw yow dañ naan la macha allah macha allah. Mhm. yow boo amee gox bi naan. Mhm. yow yow yaa tax. Mhm. acteur communautaires yi. jël passion ba nga xamante nii dañoo jàpp xale di ko jàppale di ko dundal. MJDT fas Adja Wuri Jaw yow yaa koy dundal di ko doxal foo toll. Adja Wuri Jaw dañ lay wax mention spéciale. yow foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu. li nga bëgg sa biir xol yaa ko xam Adja yal na la suñu borom taxawu. yal na la yàlla làq sa làq yeeg. léegi ñun xam nañ ne yow boo réussité. judd caaray kaw réussir. tey parce que Adja. dara bàyyi benn xale. dañuy def goûter. li ma gën a metti sëñ bi. goûter dañ koy def. xale yi du ñu am goûter. Adja bu jékki-jékkee xool xale yi. noo def dina génn dem sur le terrain te buy ñëw dee indi gute te ku nekk xam na ne MJDT ay jeunes ñoo fa nekk. Mhm. xëy na amuñu lu nga xam ne mooy jëm ci poche mais am nañ seen doole. Mhm. mu nekk xale yoo xam ne dañuy def bénévolat te yàlla rek tax. Mhm. ñu fekk si Adja mi nga xamante ne dañ ko cee fekk nag. waaye dama na damay ñaanal yàlla rek uh-huh. Adja li fi bëgg a yegg yàlla na ko suñu borom yeggale uh-huh. yow day dem uh-huh. yow yow yow soxna nga tey uh, waaw am na lu mu def tey ci yéen li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum tàggat ci mbirum développement yow tey ndax jot nga bénéficié wu ci li nga xam ne moo di tàggat googu uh, mi nga xam ne defal na leen ko allo ndax ndax tey moom defal na leen li nga xam ne moom moo jëm tàggat bi si bu ñuy wax ci wàllum développement ankay def na ko bu baax. ci yéen Adja day dañuy jël par exemple ay formation. Mhm. formation day am. Mhm. rëcc na. Adja daa mel ni buñ fi toppee ci émission bi moom euh, duñ ci jug en tout cas euh, ay euh, nit ki moom ci loo nekk rek ci loolu lañ lay seedeel mm-hmm. ndax yaa fi toog ñoom ñuy ñuy wax ngay dégg ñoom ñuy wootee mm-hmm. kon daa mel ni sa liggéey lañ gis moo tax ñuy woote mm-hmm. waaye bu ñu jugee ci loolu yaa ngi doon wax lu am solo kon yéen su ma la déggee bu baax ay période ngeen di tànn période bu nekk ak liy ñëw ci loolu ngeen di jug dem wuti ji defar mën a jaay ngeen mën ci am ay koom askan ngeen askan di ko delloo li nga xam ne moo di yem ci koppar gi askanu caaroy fas waa par période lañ koy def mais xam nga liggéey bi dafa metti mhm. munoo euh, chaque quinze jours mhm. wala chaque mois nga mhm. produire vu que produit bi ngay liggéey euh, mun na toog at du yàqu te comme produit bi ngay defar mun na toog at du yàqu donc war nga mën a dem wuti benn quantité bu doy. Mhm. nga defar loo xam ne que da nga koy stocké. Mhm. bu jàllee bu bu période mango bi comme ça mën naa jël exemple ci mango. période mhm. bi muy am. boobu mën ngay produire tout temps. mais bu jeexee. day fekk amoon nga stock boo xam ne que produire nga ko denc ko ndax dina am client boo xam ne que. Euh, day toll ci benn moment. moom di tax la bëgg. te moment boobu du moment di tax. yow fekk am nga. jus di tax wala sirop di tax. Mhm. nga daal di mën a écouler sa produit yi noonu. donc euh, ferñeent yi euh, dencin bi euh, am ngeen ay fi ngeen koy denc ba xam ne du mun a am benn lënc-lënc. non am nañ foo xam ni que nag foofu la ñuy conserver suñu produit. Mhm. waaw du am benn lënt-lënt. Mhm. Euh, te en plus euh, salle de production bi sax boo fay dugg bu fekkee yëre bi nga jëlee ci mbedd ma ñëw la. Mhm. du fa dugg. Mhm. Euh, doo fay dugg aussi defoo masque doo fa dugg. greffage aussi du dugg ci biir sale bi. waa donc am na ci yu bëri yoo xam ni que daal dañ koy respecté bu baax. ba pare itam amaan nga beneen casquette boo xam ne yow yaay trésorière nationale ndaw entrepreneur yi Sénégal waaw loolu moom. yow kañ nga bokk ci association entrepreneur yore ba nekk trésorier xam naa koppar gi war na dugg de. waaye même ba. ñooñu nag la ñu war a jàppale. entrepreneur yi. entrepreneur yooyu. Mhm. Euh, bien vrai que indi nañ fi. Mhm. DER. Mhm. pour mu gunge leen. ANPEJ mi ngi fi. mais liñ leen di jàppale doyul. yeneen structure yi ñu ngi fi mais DER financé woon na leen. DER financé na. Euh, mais aussi des na. doyul waaw mhm. ah, financé na mais des na doyul mhm. parce que ndaw yi ma gis nii mhm. ñooy ay ndaw yoo xam ne ñu ngi nekk soogay entreprendre metti na trop si ñoom dañuy obligé di def genre natt seen biir pour mën a créer seen yëfu bopp donc du benn financement bu ñoom bu ñu bénéficier wu pour mën a créer seen entreprise ñoom ñoo ko jéngul seen bopp kon yéen ngi ci biir mais am na ay jafe-jafe. am a ngi def ak moom. am na ay jafe-jafe bu baax bien vrai que nag ñoo ngi liggéey ak le conseil national de la jeunesse. Mhm. Euh, di saluer de passage Khadim Diop. Mhm. Euh, moom aussi mi ngi ñuy gunge wax dëgg fa yàlla ñi ngi am subvention. Mhm. yoo xam ne que ci la ñuy accompagner jeunes yi. def nañ cohorte un euh, former leen. di préparer cohorte deux bi pour former waat leen. ci entrepreneuriat. jàppale ndaw yi te formation yi dañ koy def gratuite. parce que ndaw ñi ki bëgg a créer entreprise am. Mhm. Euh, ñëw. Mhm. nga war ko former accompagner ko. Mhm. yorul sax lu mu créer entreprise am nga bëgg ko won yoon bi. yaakaar naa ne li nga ko mën a dimbalee mooy li nga yor. te nga xam ne que li nga yor dañ la ko jox yow it pour nga dimbali ci ay ndaw. mooy nga jàppale leen ci gunge leen accompagner leen. yaa ngi doon wax subvention yi ngeen di jot ci DER ANPEJ bariwul kon euh, su ma la déggee kon naam. Euh, tey jot na ndaw ñi dem ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum entrepreneuriat ndax booy wax lii est-ce que du tax ndaw yi mën a am euh, découragé wu ngir bañ a dugg ci li ni mel tey jàpp ñu bari jàpp nañ ni euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum entrepreneuriat moom mooy gunge nara lu gunge ñi nga xam ne nag ñoo di ndaw ñi ëllëg. solution bi entrepreneuriat la. Hmm, yaa wax loolu nañ dem entreprendre. Mhm. te ñi ngi ci yoon bi sax. Mhm. Eh, te yaakaar naa ni que. financement yi ñëwul mhm. du leen dawloo mhm. du leen dawloo parce que fi toll nii mhm. euh, jóg nañ de te xam nañ fi ñu jëm ak li ñu bëgg ak nan lañ koy defee ndax li gën a jafe mooy nga am formation euh, lu mel ni le réseau national des jeunes entrepreneurs du Sénégal ak euh, suñu président Moustapha Gueye mi ngi ñu ciy gunge ah di leen ci jàppale. Mhm. di former ay jeunes. Mhm. te en plus. Mhm. bu leen former pare seen projet da leen koy bindal. pour ñu mën a bénéficier wu ay financement donc yaakaaruma ni que DER financé wul. wala ANPEJ wala beneen structure. du tax ñoom. Euh, ñu dellu gannaaw déedéet. man damay jàpp ni que dañoo war a. gën a gën a avancé gën a jàpp. te xam ni que euh, ndar xëyul rek sotti mhm. mais foofu aussi ci wàllu financement jeunes yi mhm. pour ñu entreprendre mhm. man foofu damay dal tuuti sama yaay yi ñu baal ma nag ndax amuñu lu dul ñoom waaye ñoom ñoo ngi teggi natt yi ñu ngi teggi ay natt un million di teggi ay natt quatre cent mille yaakaar naa ne seen natt yooyu buñ ko joxoon ndaw ñi seeni doom ñu daal di ci commencé dara benn xale du àbb yoon bi ndax yoon bi ñuy àbb di dem Barça du solution wala Barça du solution bi mhm. solution bi mooy toog fii ci réew mi mhm. liggéey fii ci réew mi tekki fii ci réew mi mhm. te mën na ne buñ ko gëmee rek mu nekk kon suñu yaay nañ ñu jàppale foofu bu ñu teggetee seen natt yi buñ ko xewee buñ nekk dëgg la nag faw ñu sol waaye tamit ñu limité ko xam nga teegi natt un million wala quatre cent mille def ko ci loo xam ne que boo xëyee <laughs> <laughs> ndékki bi day jafe donc boo ko jëloon sa doom bi toog ci kër gi Euh, di xaar wala muy xaar ñu woo ko mu dem stage. Mhm. di xaar entretien. Mhm. kooku boo ko jëloon jox ko somme boobu. Mhm. mu am lu mu ciy débrouiller def ko ci. donc kon mën nañ xaar seen association mouvement bi nga xam ne jiite nga ko. nga taxawal ci ab kuréel boo xam ne natt lay doon ngir ku nekk euh, ëllëg bu teggee mun ci euh, ubbi benn entreprise boo xam ne dina ci mën a jàppale boppam. waa maa ngi ciy xalaat parce que bëgg naa ëllëg. ndax man. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. allo. allo waaw salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay dégg tur bi ak foo ñu woowee. waaw ah, maa ngi tudd Ibrahima Mbow di woote Thiaroye. Ibrahima Mbow bisimilah lan nga ñu mën a wax ci Adja Diaw. waaw tey dama jàpp chaîne bi dégg voix bi nga xamante ni ba mu ko déggee dama am contentement. Hmm. contentement bi nag. maa ngi koy hmm. exprimé par euh, action yoo xamante ni mi koy def ci suñu gox. Hmm. allo allo waaw maa lay dégg bu baax. waaw waaw waaw c'est une dame bi nga xamante ni c'est une dame très dynamique mm-hmm. man mii di wax a yow xam naa ko parce que je parle en conscience de cause parce que je suis étudiant mais je sais que c'est une bi nga xamante ni elle se bat corps pour la réussite de la commune. Mm-hmm. te ñun ko ñun en tant que étudiant yi si nekk fii ci commune bi. Mm-hmm. ñun daal ñu luy portons notre soutien. te wax ni ñu ci ginnaawam. pour toujours a déterminé. waaw di wax tamit auditeur yi ñuy dégg daal ñun les jeunes de Djidah Thiaroye Kao. Mhm. pour nous si vous voulez nous aider aider Adja. Mhm. aider Adja pour nous aider. Mhm. c'est le seul message que je kooku ab étudiant la moom euh, joxe na bataaxalam. Euh, mel ni yemoo ci étudiants yi rek. waaye yemuma ci étudiants yi rek nag. alors dinañ am benn pàcc boo xam ne di nga gërëm mais yaa ngi doon wax lu am solo ci mbirum entrepreneur faa ñu jàppale leen kon su ma la déggee kon yéen. quatorze régions yi da ngeen di wër sol seen dàll ndax tey sensibilisation lu jëm ci wàllum entrepreneuriat ndaw yi ñu ngi ciy bàyyi xel ndax yéen a ngi def loolu ci quatorze régions yu Sénégal yëpp seen kuréel gi nga xam ne moom moo tënk association nationale ndaw entrepreneur yi euh, ci nim réew waa ñu ngi waaj fi mu toll nii sax pour mhm. def benn tournée mhm. euh, secretaire général nan la mhm. ma koy nuyu de passage moom mi ngi nekk di ci liggéey moom ak euh, Bekaay qui est chargé du partenariat ak projet au niveau du réseau ñoo ngi nekk di liggéey ci loolu pour def benn tournée parce que chaque département réseau bi am na fa ay club club yooyu mu fa am ndaw ñi fa nekk ñoom bu waxtaan ak ñoom ñoom it dinañ mën a multiplier information yi ci seen yeneen i ndaw. Mhm. waaw ñu ngi waaj tournée bi euh, mhm. bientôt rek incha allah dinañ def tournée bi. Mhm. Euh, toujours nag di ci ànd ak euh, Khadim Diop. parce que wax dëgg fa yàlla mooy seen bailleur bu mag. waaw mi ngi ñuy jàppale daal. waaw mi ngi ñuy jàppale lu baax lu mu gis rek. foog ni que ñun ci biir lañ bokk. ak Assane Ba bu ANPEJ. ok léegi bu ñu ñëwee ci delluwaatee ci gox ba Caaroy fas parce que moom moo tax fële lépp dooree. mairie bi nest pas moom mooy euh, moom euh, ban taxawaay ngeen am ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci mairie bi ndaxam ñoom dañ leen di accompagner ci initiative yi nga xam ne yéen a koy jël di ko def ci gox ba. Euh, comme ni nga ko waxee lépp mi ngi dooree jite caaray kaw. quartier mhm. Fass. Mhm. ñu Cheikh damay rappel ni rek Cheikh Dieng moom mooy maire maire commune ba. waa mhm. docteur Cheikh Dieng. mooy maire commune ba. yàlla def na aussi. Euh, jëflanteeguñu ci mhm. wàllum développement waaw mhm. mhm. euh, wax dëgg fa yàlla suñu association yi nga xam ne ko ñoo nekk au niveau de Fass ndax su may wax Fass laay wax ndax suñu quartier yooyu Fass mi ngi commencé sant yàlla euh, ba biir daarulaay te mi ngi ëmb treize quartiers ah gis gisuma fa association yi fa nekk ak réseau de femme yi nga xam ni ko ñoo fa nekk ah man de. su ma la déggee mooy amoo leen ndimbalu maire. amuñu si seen initiative yi nga xam yéen a ngi koy jël ndimbalu maire ci mm-hmm. suñu initiative yi nga xam ni que ñun ñu ngi koy def. au mm-hmm. niveau de MJDT Fass. Mm-hmm. Euh, muy camp de vacances bi nga xam ni que ñu ngi koy organiser durant les vacances boole ko def ay cours de renforcement pour xale yi. Euh, ci wàllum environnement bu ñu waree set setal Euh, gisuñu ci ndimbalu maire. ah maire bi moom environnementaliste la sax de. en plus sax du ñuy set setal rek yem si. Mhm. dañuy reboiser. Mhm. ci gox bi ci gox bi. Mhm. Mm, année année bi ñu génn. école yi nga xam ni que ñoo nekk ci commune bi yëpp deux écoles rek lañ ci demul. reboiser ko. te kenn dimbaliwuñu ci. Mhm. Euh, maire te yéen yéenay génne seen koppar euh, woo ndaw ñi ñu ñëw di leen jàppale te gisoo leen kenn koo xam ne jàppale na leen fa. ma ne la étudiants yi ci nekk sax buñ ne cotisation bi temps la dama naan ay dimbali leen étudiants yi ak élèves yi ñii xam nga ni amuñu lu ñuy kiiwee bay cotiser montant ak somme bii mhm. ñoom seen jëmm ñooy fippu mhm. ne non non cause bi cause bu noble la mhm. duñ la ci bàyyi yow kese donc ñoom ñooy accepté di cotiser avec ces cotisations yooyu moo ñuy dimbali ba ñuy def action yooyu ñuy def ànd ci lu mel ni ci reboisement yi ñuy def euh, bu fi race euh, les amis de la nature nekkul woon mu xaw a ñaaw parce que ñoom it euh, ñoo ñu jàppale ci wàllu plante yi ñu mën a def suñu journée yooyu mais daal bu weesoo loolu amuñu benn ndimbal boo xam ne que mi ngi jóge ci suñu autorité yi nga xam ne que ñoo nekk au niveau de notre commune mhm. ma ci jiital le maire mhm. waaw donc moom il e tout le temps abonné au absent ci li nga xam ni moom moo jëm mën a jàpp parce mhm. que suñu projet bi nga xam ni que mettre nañ ko en place bi ñu ko defee dañ ko étaler ci ñetti at yóbbu nañ ko dem nañ seeti ko waxtaan ak moom ba mu moom est-ce que yéen mos ngeen jël initiative nga ne ñun lii la ñuy def ñu dem waxtaan ceeg maire bi ndax yéen jàkkaarloo ngeen ak moom wax ko ngeen xam ni ñun lii lañ bëgg a def loom leen ci tontu. xam nga booy dugg ci kër. Mhm. dafay am buntu kër. waaw euh, dëgg la ñu ngi jënd caaree kaw. Mhm. mën nañ demal suñu bopp. Mhm. waaye sans suñu maire it duñu dem. ndax mooy suñu meer man jàpp naa ni mooy suñu président. Euh, bi ñuy door dem nañ seeti ko toog waxtaan ak moom. mun nañu sax da ngeen yéex a ñëw xëy na bu ngeen teeloon na ñëw sax mu am neneen nu mu gënoon mën a demee mm-hmm. mais bu soobee yàlla dinaa leen gunge mm-hmm. dinaa leen jàppale mm-hmm. ndax lii ngeen di def nii ñëpp war a jël exemple surtout ay ndaw tamit ah. te ngeen ni ay ndaw ñii ay étudiants ñi ay élèves donc dinaa ñëw jàpp ci waaye wax wax dëgg fa yàlla boobu ba léegi ñoo ngi suñu troisième édition di ko waaj gis ñu benn ndimbalu maire donc su ma la déggee daal maire bi da leen di tànkaamu rek ah meer daal ah xëy na dafa jàpp rek. bu mhm. jàppandee rek dina ñëw. Mhm. Mhm. xam naa dafa jàpp rek. ok eh, mais laata loolu ah, amuleen ñeneen autorité yoo xam ne dëkk nañ ci gox bi ku nekk ku dul maire koo xam ne euh, tey yàlla may na ko nomba tànk tey ci gouvernement bi mu leen di jàppale ci yenn initiative yi nga xam ne moom ngeen di jël ci ci gox bi. Euh, autorité yi ñuy jàppale nekk euh, au niveau de Djité Thiaroye Kaw. amuñu ndomba tànk ci gouvernement bi. bien vrai que nag ay acteur politiques lañ. Mhm. ñoo ngi ci géewu politique bi. Mhm. ñu ñuy jàppale ku ci mel ni docteur Lamine Diouf. Mhm. Euh, camp de bii may organiser muy ëttu xale yi ci Déthiaray kaw. kaye euh, yi ñuy may xale yi. daf la ciy fekk daf la ciy fekk si. waaw. yow est-ce que maire bi sax jàppul ni da ngaa bëgg mairie bi moo tax mu loo bëgg rek mu tëjal la bunt bi. tey jox nañ cent vingt enfants. ay fourniture complète. jàppale seen waajur yi. ci biir cent vingt enfants yooyu ñu jox vingt et un jours nekk nañ kook ñoom di leen jox goûter chaque jours mhm. euh, ku ci mel ni Pape Samba mi woote woon sànq day jóge ba dakaar mhm. fii ñëw fekk ñu jidda mhm. di may si goûter pour xale yi euh, ak tamit euh, honorable Alassane Samba Ndongo moom tamit fekk si nañu jàppale ñu. Mhm. ci loolu nga xam ne que ñuy yëngatu. Mhm. ak euh, benn jigéen boo xam ni que actrice de développement la. Mhm. mi ngi nekk ci commune bi. Euh, moom aussi bi mu déggee li ñuy def. ñu seeti ko wax ka euh, jug na moom it. jàppale leen ñëw jàpp ci. muy muy conseillère municipale. madame Adji Koduka. donc su ma la déggee daal maire bi rek a ñëwul. waa nit bu defee lu baax. mu jëm ci ay xale dañ koy wax. ñooñu daal mhm. ñëw nañ taxaw mhm. jàpp ci mhm. gunge ñu ah, ak kenn koo xam ne nag ñoo dëkk ak moom au niveau de Fass muy opérateur économique euh, tudd Mor Niass kooku moom euh, ñun dañ naan moom mooy parrain wu MJDT Fass ndax lim ciy def lim ciy daj ak lim ciy wax defe naa ni kenn def ko ci kenn waxu ko ci ak suñu chef de quartier dinañ ñu xelal dinañ ñu orienter projet bi sax bala ñu koo def dañuy ñëw toog waxtaan ak ñoom ñu orienté ñu wax ñu def leen lii. Mhm. wax leen lii mhm. doxee leen nii ñu def ka mhm. ci at mu bees bi tey projet yi tey boo ñu ko mënoon tënkal tey lan la. waa at bu bees bi moom. Euh, comme niñ koy waxee. daañu yëngu ci environnement. daañu yëngu ci santé. daañu yëngu ci éducation. gën a yokk comme ni ko xale yi waxee cere dooli ñeex. waa euh, li ñu defoon. daaw mhm. def ko daaw géej mu jig ñu mhm. ñu wut luñ ci yokkaat mhm. mu gën ñu jig waaye foofu tamit euh, sànq dañuy wax ci wàllum miir yi ma am ci benn message bu may jàllale te sama benn ndijaay mu dëkk Fass tonto Assane ñoom ñu nekk ci chaque jour ak waa Caaroy démb ak tay di ci wax muy teer bi daf leen sonal teer bi laal nañu bu baax même euh, ñu sonalee mooy pour ñu am accès ci camp bi mhm. jafe nañu parce mhm. que fala la marché bi ne mhm. hôpital bi fa la nekk dispensaire bi fa la nekk kon daal sonn ngeen école yi fa la nekk sonn nañ te pont bi ñu wax lañ ñuy defal passerelle bi ñu bëgg a defal ci diggante fi ñu ko bëgg a def ak ñun fa ñu féete deux kilomètres la distance bi mm. loolu nag ñu ngi ciy woo appel président Macky Sall. Mhm. Mhm. ndax moom moo jiite ñëpp. Mhm. ñu ci mënoon dimbali daal foofu. Euh, ñu dimbali ñu ba ñun tamit ñu am benn passerelle. bu bokk ak beneen bi nga xam ne que fañ ko bëgg a def sori nañu trop pour ñu jote si. ndax jàng mi xale yi met sonn nañ pour dem jàngi. bu 18h jotee. kenn benn parent dootul da xelam du dal. tànk doomam ñibbisiwul ndax foofu. sécurité bi fa war amu fa bala ñoo jéggi raay bi bay ñëw dafa doywaat waar torop kon donc loolu gën na yokk jafe-jafe yi Euh, Caaroy fas waa gën na yokk jafe-jafe yi ca Caaroy Fass mhm. daal gën na koo yokk. moo de la fin bi tey euh, boo doon sant ak gërëm ñi nga xam ni jàppale nañ leen tey ba ngeen yegg si fii tey ñan la comme ça ñu daal di tëj. waa bu may sant di gërëm mhm. euh, damay sant di gërëm d'abord mhm. ndawi MJDT. ndawi mouvement des jeunes pour le développement de Thiaroye mhm. jaarale ko ci suñu secrétaire administratif bi mhm. euh, c'est un inspecteur de l'éducation mhm. kooku gëm ñu ñun ndaw mu ñëw ànd ak ñun monsieur Diadio ma koy jël sant gi ak gërëm gi nga xam ni que maa ngi koy jox ndaw yi mhm. euh, teg ko ci loxoom mhm. di sant di gërëm aussi suñuy waajur mhm. ndax ñoom it ñoo ñu yombalal bu ñu bàyyiwul woon du ñu am fit di def bay teg benn paa waaye ñuy sant di gërëm suñu partenaires yi di leen remercier ku ci mel ni association Racine des Hommes euh, ku ci mel ni les amis de la nature ak aussi suñu parrains yi. Mhm. suñu partenaires yi ñuy jàppale. Mhm. Euh, suñu jeune modèle yi nga xam ne que ci commune bi ci quartier bi lañ leen di jël comme ay modèle mhm. def ko référence ci ndaw yi. waaw ñun ñu ngi leen di remercier bu baax di leen sant di leen gërëm di wax ni que aussi euh, bala maa bala ngaa tëj. bu ñu fàtte. ndaw yi nga xam ni que. ñooy organiser pèlerinage ceytu at bu jot. ndax ñun suñu loxo da cee nekk ci biir. ñuy dem ci bërëbu Cheikh Anta bi. Mhm. ñu gën leen bàyyi xel. Mhm. gouvernement bi gën leen mën a. Mhm. accompagner mooy ku mujj dañuy jël kooku rek ku mujj salaamaaleykum. allo sëñ bi yaay ku mujj. allo allo waa ñu lay dégg bu baax. waaw asalaamaaleykum man la Moussa photographe. musaa photographe yow yaay ko mujj lal nga ñu war a wax ci ñaari minit ci ki nga xam ne moo di. waaw Adja Diaw. waaw kooku ngeen invité. exemple la pour goxam. exemple la pour yeneen goxu Sénégal. Mhm. mel ni euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci émission bi jeex na. Adja ñu ngi lay sant di la gërëm euh, ñu bàyyi la nga continuer sa kàddu gi mu jigi rek di leen sant yéen tamit di leen gërëm mhm. euh, yéen waa réew mi FM mhm. di la remercier ci invitation bi Memba di sant aussi auditeurs yi nga xam ni ko ñoo ñu doon déglu. Mhm. Euh, di am tamit njortu ni que. Mhm. Euh, lépp lu fi matadi rek. Mhm. ci ñun la. waaye lépp lu fi jubit ci yéen la. ñu leen di sant di leen gërëm. kon sant ko gërëm ko di leen euh, jox daje yéen mbokk yi ba dimanche incha allah ci beneen émission gox bi.